est-ce que da ngeen respecté injonction CEDEAO bi concernant le le, le parrainage ngeen ko dindi wala c'est le dialogue qui va en décider. non CEDEAO mënuñu ñu dicté ñu génn parrainage. ah ngeen signé ay ngeen ratifié ay convention communautaire. dafa ne ñu xoolaat parenage bi dans le sens de réaliser un consensus. yéen a ngi ci président Macky Sall ne dialogue national dugal leen ci parrainage dugal leen ci réhabilitation yi ñu bëggaat voté dugal leen ci troisième mandat leen dugal leen ci lépp amul sujet tabou donc parrainage bi dañ koy waxtaan. su gaa ñi jàppee ne dañoo war a reprendre parrainage bi mais ñu reprendre ko su gaa ñi ne bëggatuñu parrainage bu nekk constat ñu génne ko. mais nan ngay expliquer. jeex na waxtaan la rek que de Senghor ces questions d'inéligibilité là ne se soient pas beaucoup posées mais de 2012 à nos jours sur euh, en tout cas sur les cinq majeurs ñi nga xam ne on est sûr que ils sont représentatifs d'un électorat de plus de cent 000 voix qu'il y ait trois candidats inéligibles nan ngay expliquer loolu. ñeneen ñi ñoo dul woon appliquer justice euh, dans toute sa dans toute sa sa sa sa wala wala yéenay utiliser justice pour barrer barrer la route à vos adversaires le principal opposant le plus célèbre de l'histoire du Sénégal c'est Abdoulaye Wade il a été amnistié moo tax mu mun nekk candidat non mais dañoo préparer les conditions non suñ ko amnistié wuloon du nekk candidat 93 mais il a été amnistié tamit suñu leen amnistié am na ñaar ñu la am na ñaar ñu la te présidentielle te loolu mosul am dans l'histoire politique du Sénégal. la c' à dire que lu nekk aussi mais mais mais dans l'histoire politique du Sénégal alternance mosul woon am ba élection noonu la dans l'histoire politique du Sénégal président mosul woon ñàkk a élection ba Abdou Diouf ñàkk a élection Abdoulaye Wade élection. Senghor rek moom mosul ñàkk élection moom Macky Sall Senghor moom dafa choisir dem ñàkkul élection Macky Sall dafa ñàkkul élection mais président Abdou Diouf dafa ñàkk élection Abdoulaye Wade dafa ñàkk élection lépp ci histoire politique day am une première am fu mu commencé mais l' essentiel mooy ngeen mun a am une dynamique sociale une dynamique politique boo xamante ni di ngeen construire des consensus parce que moom xëccoo la politique xeex la politique coow la donc il faut mu am ay problème mais am leen grandeur. à un moment décisif de l'histoire ngeen toog trouver ay consensus ngeen avancer. merci février deux mille euh, euh, mars deux mille vingt foofu laay jeexalee mars deux mille vingt quatre avril deux mille vingt su président bi defee prestation de serment yàlla nag Macky Sall wala keneen mais après on oublie tout ça. merci beaucoup loolu mooy Sénégal.